combat boisson énergétique boobu waaye nak mbok yi lepp CNG de lutte bi moko ko coiffé. Pape Morlo numéro 2. mo nek non mo non dakar lol tokas nan ko yoruna da ngay xex japonté di dor Japon'dan jeu de plaqué seize heures cinquante-sept mbot wër ndomba wër na ndomba Pape Ngor Lo wër na Dan Pape Ngor Lo dañ koy buddi Salut du Sénégal waa Ndar Géej am ngeen le drapeau du chef de l'État son excellence monsieur Makissa. 23e édition du au 14 mai 2023 foofee ca Ndar 14 régions nak ñom ñooy présenter réew waaye mbokk yi amna na nouveauté bu bees bu ci am intégration de la petite catégorie mbokk yi ci yooyu les bés di am foofee ca Ndar dinañu tànn nak ñi nga xamanteni ñom ni les meilleurs lutteurs en lutte sans frappe lolu yëpp nak ngeen mën am en direct ci Eric Favre TV mu and ci nak ak jamba boisson énergétique énergétiques. waaye nak mbokk yi lépp CNG de lutte bi moko ko